coow la ngi ne boy ci mbiram déclaration de politique générale bi sagari yi itam gën di premier ministre Ousmane Sonko ak assemblée nationale Boba lépp DPG Amadou Ba premier ministre ba won dugg na ca mom candidat wu Bokk Yaakaar bi ci élection présidentielle bi nu wessu mi ngi tambalé bataxal bi mu génné ci mbir ni démocratie bu Sénégal dafa wéku ci ay institution yu dëgër waaye itam ay pratiques républicaines yo xamné ñepp ko respecté déclaration de politique générale premier ministre naknena, néna communication dafa nekk jamono jo xamné ni gouvernement bi mooy taxaw engagé wu ci kanamu askan wi jaaree ko ci ñu ko teewal ci péncu ndawi réew ma di député ya wax fan la nar a jëmee réew mi sukkandiku ci li président de la république xaal niw yoon article 55 bu constitution bu Sénégal nag Amadou Ba ngay fàttali ni moo sant premier ministre bu nu ko falee mu def déclaration de politique générale am ci kanamu assemblée nationale loola nag nee na xel xalaatul ñu di ko bañ a def faw tradition boobu ñu sàmmonte ak moom ndax yorin wu sell di transparence dafa caa aaju waaye itam responsabilité gouvernement bi yépp DPG booba nag mu ni waruñu ko defee fenn kon fudul fa ko constitution ba joxoñ muy assemblée nationale muy assemblée nationale def déclaration de politique générale ci assemblée nationale googa ci kanamu député yi wi ca péncum ndaw Ba nee na du obligation constitutionnelle maanaam rek du loo xam ni constitution bee la ko sant dafa nekk wareef xam ni kenn waru ko salfaañee nee na loolu moo waral bi mu nekkee premier ministre mu de politique générale am ci kanamu assemblée nationale booba ñetti weer ginnaaw bu ñu ko tabbee jàkkaarloo woon itam ak motion de censure bi député yi ab groupe parlementaire dugaloon Amadou Ba de ngir mucc ci crise institutionnelle boo xam ne mën naa naxasal sunu démocratie ñépp dañoo am wareefu fexe ba lépp lu démocratie réew mi laaj ñu def ko sàmmonte ak moom ci wàll yépp loola waral mu ne yéeneem gu gën a rëy te mu teg ko ci engagement politique am mooy gis suñu réew gën a xuus jëm ci démocratie gu dëgër gu tegu ci ay institution di bànqaas yu dul yànq mukk mu ne nag suñu yéene ñun ñépp ci yokk doole boobaleb démocratie dana tax askan wi 嘅人一貫以 unanimité lii mooy kàddu yi premier ministre ba woon Amadou Ba yëkkati ci coowal déclaration de politique générale bi dox diggante Ousmane Sonko premier ministre bu Sénégal ak député yi ca assemblée nationale groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar rawatina booba lépp groupe sax tey yokku na xar mi karaw gannaaw ba mu dàqee débat d'orientation budgétaire bi waroon na am ca assemblée nationale googa tontoo noona premier ministre mi ne fii ak fukki fan ak juróom weeru juillet bu ñu jubbantiwul règlement intérieur ba moom dana dem feneen defi de politique générale am janoo ci la polémique enfle et la crise s'accentue entre le premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale particulièrement le groupe parlementaire Benno Bokuyakar, une polémique qui repose sur la déclaration de politique générale justement l'ancien premier ministre Amadou Ba se prononce sur la question dans son communiqué rendu public ce samedi le candidat de Benno Bokuyakar à la dernière élection présidentielle rappelle que la démocratie repose sur des institutions solides et des pratiques scrupuleusement respecté par tous. La déclaration de politique générale du Premier ministre, loin d'être un simple exercice de communication, constitue un moment décisif où le gouvernement s'engage devant le peuple à travers ses représentants élus à suivre un cap précis selon les orientations du président de la République. Il rappelle aussi que l'article 55 de notre Constitution impose au Premier ministre de présenter sa DPG devant l'Assemblée nationale. Il est donc impératif, selon Amadouba, de perpétuer cette tradition républicaine, gage de transparence et de responsabilité gouvernementale la DPG, dit-il, doit donc être présentée dans le cadre institutionnel approprié conformément à notre constitution et à notre tradition républicaine. Faire la DPG dans l'enceinte de l'Assemblée nationale devant les élus parlementaires n'est pas seulement une obligation constitutionnelle, c'est un devoir sacré, souligne l'ancien Premier ministre. Et c'est pour cette raison qu'en tant qu'ancien Premier ministre, Amoudouba dit avoir fait sa DPG devant l'Assemblée nationale dans les trois mois qui ont suivi sa nomination et fait face à la motion de censure que les députés d'un groupe parlementaire avaient introduite pour éviter une crise institutionnelle susceptible de fragiliser notre démocratie, il est de notre devoir de veiller à ce que chaque étape de notre processus démocratique soit scrupuleusement respectée, recommande celui qui appelle à une nouvelle responsabilité et qui termine son texte par dévoiler son vœu le plus cher, qui est de voir notre pays progresser dans le respect de nos institutions et de nos valeurs démocratiques. Notre commune volonté à veiller sur ces principes renforcera notre démocratie et consolidera la confiance de nos concitoyens envers leurs dirigeants conclut Ba, ancien Premier ministre du Sénégal.